السلام عليكم ورحمة الله taala wa barakaatu samay mbokk réew muy Sénégal nga xam ne fi laa juddoo yaroo fi màggee fi maa ngi nuyu ñëpp ci nekk sa tur ak sa sant di fanweer di jiital ci nuyoo sama yaakaar ci àdduna muy Cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahima Niass من વિના તૈમોએ ખાલિદ મૌલાના શાહ ઇસ્લામ ويقرني وأخوي أخوي سوبي مولانا شفاعي يعني بأمر نبي وياك في الغور تبر نحن اسمي تيتا كل شيء معي أمرني بباع أسكن الدار دمنا ولولو ما يجي بساعة بيتر sama mag yi nga xam ni tey bàyyi wax na ne lépp lu ñu ñaan yàlla karaamam mooy nekk alquran al karim te alquran jooju tey moo nekk karaama mawlaana cheikh al islam xaaji Ibrahima Niass karaama jooju tey ki ko yore suñu mag cheikh Abdul Malik ñi nga xam ne tey mboolem li nga xamne moy alquran ci Medina Baye ci sa taxaway baye jere jërëjëfal bu baax di ko ñaanal yàlla ala yàlla dal fana ak ki nga xamne sama xarit fo ko gis rek gis ma ci wetam moy serigne Aliou Cissé mu haaj Ahmed ibrahim ni ñu ko xam ci Cissé ñass mu Papa Dam wax deug yàlla taxawaayam rafetna ni Cheikh mustafa di Babacar Lo mu sëriñ maanaam ñun ñëpp ba mu yàgg di lii danaa waaye maa ngi gërëm si ñaan maa koy gërëm si ñaan mu bàyyi ak mboolem taal ka bàyyi ma fekk si woon tribunal di gërëm nag spécial ki nga xam ni mooy maire Adama Sall bu Kër Massar maa ngi koy gërëm di sant waaye di gërëm ci gërëm boo xam ni ndax lim nekk taalibe Baay ñëw solidarité ci doomu sëriñ ci loolu laa koy gën a gërëm sàkkantement ba mu nekkee maire Baay te jour boobu ko doon tukki waaye ñëw na solidarité gërëm ña bàyyi woon kenn waaye gannaaw loolu nag gannaaw ba ma demee uy ji polémique bi dafa bëri te yaakaar naa polémique bu bëri boobu nit ki nettali ci làmmiñam moo gën dama leen di wax man ingénieur benn aw ma kenn ku may farfarloo wala aw ma kenn koo xam ne damay dugg ci yow daraja yàlla may na ma daraja doy na sëkk daraja jooju mooy lan nekk naa doomu Cheikh Ibrahima Niass ba pare man international laa laata Sénégal di nekk international kon du bës du wala nit ñi bëgg ma fekk na nit ñi bëgg ma bu yàgg parce que bayra yàlla may na ma ko man ba ma juddoo nekk xale dañu di dem Medina Baye nga laajte munoo laajte Medina Baye nga laajte xalifa bu tëb a laajte ki nga xam ne mooy càdd muy bay bayat kon loolu taxumaa jóg ndax ku yor deux mille soixante deux personnes loolu doy na preuve waxuma nag yeneen ay yeneen ay yeneen dayoo yàlla def na citoyen la kon ñëpp ak loo mënti nekk moomu Cheikh justice soxla ma wax ma damay jub dem ulti justice kon citoyen Sénégal dëkk bépp citoyen loolu moo la war danaa war a mën a dem pour dem uy ba ma demee uy fekk naa fa juge boo xam ne ñu koy wax na juste une enfant jàll ku teey te yàlla may na ko su ko gisee gis ko jullite yàlla dafa ma koy yëgal ci sama biir waaye mun naa seede maa koy soog gis te mënoo gis nit rek seedeel ko loo xam ni xamoo waaye li ma yàlla may man ci xeeba gi ma am di ko gis gis naa ne nit ku jullite la gis naa nit ku dal la ndax laaj na ma li ma war a laaj yëpp ma tontu ko ko waaye waxtaan ree coof amul benn problème kon doomu aadama mu koy fekkee loolu laa bëgg kii koo xam ni day jiite ay nit parce que ñun ñëpp dañ te lu muy liggéey ay liggéey la nag ku ci wàcc wàcc nga ci da mel ni kon keneen ki muy police bi muy gendarmerie muy militaire bi soo solee sa tënk yaa ngi ci service waaye soo passé service boobu nag xamal ne nit ki nga kon nit koy dugg ci bureau bi te loolu wane na ko te ko ci loolu tey nag man li ma taxoon maa ngi leeral sénégalais yi nag man Adji Sarr encore une fois sama doom la encore une fois ñoo bokk Mawlana Ibrahim waaye encore une fois gis Adji bët ak bët musuma nuyonteeg Adji Sarr gis na ma bokk na ci sama kuréel bi Shabab al Fayda ma waxaat musuma waaye Adji Sarr moomu man nag li ma war mooy ndaw laa bëggoon àdduna nekk ci àdduna nekk doomu Sénégal ba ma ba ma ñëwee bëgg naa àdduna ba ma demee ba xam ne àdduna bëgg ko nekk ci du sa yoon ndax sa bàyyi daf laa jur ngir lim jàng ak lim tabax lislaam pour doomam yi ñoo àggale ko ba gis ne lii mooy sama wareef lii mooy liggéey bañ naa ko ba ci sama profession damaa def chef religieux ma jóg nag pour dox mission boo xam ni sama baay xam naa ne li mu def mënu ma ko waaye dinaa ci def lu ma ci mën ëllëg su ma sama baay nga xam na du ma rus yàlla may ma may jël ay xale di leen yar ku may yar xam nañ ma ci dëggu te bëri na bàyyi bu ma dëgg muy samay mag ñépp xam nañ ma ci dëggu yàlla may ma dañ koy di ko dindi ci Cheikh Ibrahima Niass ma taxaw défendre na leen li tax nekk jullit ba pare am jikko yoo xam ne yu rafetul ci lislaam sakantement nag koo xam ne nee nga pare nga war yàlla moo gën a foor lépp yéen ñoo a foor nekk ñëpp kon nag nekk taalibe Cheikh Ibrahim après mun naa ne ne ci loolu ma défendre ko ci laa toogee gis naa waajuram toog ak moom toog maag ak frère yàlla may ma xel may xalaat ndax man mënuma def justice man damaa bëgg lépp di tegu ci yoon ma waxtaan ak moom waaye bu leer décembre la ma wax ñuy ma dugg ak moom ci ba nga xam ñu ngi est-ce yow ma xiyaam man lii di wax ak yow ak nit ñi ñëpp ay complice lañ yàlla danañu bëggal mu ne ma ah waaye du complice loo xam ne man bépp ñi nit ñi dooloo nekk def ko loolu mooy complice mu yàlla may tuutal bàyyi loolu mais après dafa bàyyi wax jooju duggal moom ci waxu àddina biir waxu àddina boobu ci lañ dugg ma gëmloo ko xaalis mu tontu waaye li ci nekk dama ne bis bu ko sénégalais yi déglu ba xam dëgg booba nekk ci sénégalais yi boobaa di gis ku bàyyi magasin mu ubbeeku di gis ku bàyyi mu bàyyi ko fa di gis ku jëloon kàppaaru ay milliards sànni ko fa daw a jëf man kilifa laa bu ma toog li ma yore oote na ne képp koo xam ne kilifa nga wala xalifa nga maa ngi lay ñaan nga ñëw dimbale ma nga ñëw ñu waxtaan ndax lii waroon nañ ko waxtaanee bu yàgg balaa nit ñi di def ndax avertir naa wax naa kilifa yi wax naa ba sa mais kenn faale wu ma tey tamit responsabilité boobu tamit nañ xam ne buñ sëriñ si am nañ ci àq nañ xam ne am nañ ci àq yow ma xiyam ndax képp kuy xalifa ci réew mii na nga xam ne amiru bu muslimin amiru bu muminin amiru bu muminin mooy ki nga xam ne da ngay jiite ñi nga xam ne ñooy jullit yi pour teg leen ci yoon waaye duñ jël rek li alquran wax ataamu naasa bi birri wa tansawna anfusakum ñi nga xam ne dañuy digle lu baax di fàtte seen bopp yàlla ñoom ñu daf leen a tëkk yow wax comme responsable de vie, de vie, de vie, de vie, de vie, de vie, de vie, de vie, de vie, de vie, de vie, de vie, de vie, de vie, ورانا نقول نسمع كجيدة نخسر ما إنا ولا لي من دوب شاف بعد نصنع تكن كتنة دوبه وانا يا الله بقى من كتنة يا الله ما إنا دورنا نقول نخونا آ سمع ولا لي ورسمع كبير لي بدل مباه lan moo xew ñu déglu ko dañ mën a yóbbu ndàndal ñu déglu ko ñu mën koo dox ci suuf jël doomu jàmbur delloo ko jël nangam delloo damay wax sama diggante gan aji saar musuma tuddal président Macky Sall dañ commencé ba léegi musuma tuddal président Macky Sall tuddal mooy ki nga xam ne mooy waaye nag dama lay fàttali monsieur le président yaay suñu président yaay suñu njiit tey addina yëpp tey ñu nekk Sénégal ñuy dund yëpp yow la yàlla di gën a yóbbu ndax yaa yore suñu sécurité yaa yore suñu dund tey bakkaar su fekkoon ne téeméer ñun ñii ñëpp mën nañoo waaye yow yaay am cent pour cent parce que yow yaa jiite Sénégal man lay ñaan en tant que Baye Mbaye Niass mi nga xam ne lu mu dee liggéey naa la ci APR nga gañe kaw la gañewaat gañewaat depuis 2013 ba léegi te musuma laa lekkal dërëm musoo leen maa defal dara waaye man lay ñaan ci loolu nga fayee ma lenn lu ma lay ñaan li ma lay ñaan mooy yaay président lu mu fa am ci histoire Sénégal 14 pays amul enquête amul dara te xam naa ne seen papa yi seen yaay yi ñoom ñëpp ñu ngi am métit kon monsieur le président ñun lay ñaan ci kattan bi la yàlla may nga xam ne nga jiite ngir yàlla amal enquête ci ñi dee ñii ndax seen yaay yi wala seen papa yi seen xol mën a féex te xam naa ne mën ko ko te soo ko bëggee def di nga ko def tey tey tey tey ndax tey yow la yàlla may doole ci yow ndax yow la yàlla may bay nga mel ni yàlla ci kaw suuf parce que koo bëgg mu riche mu riche koo bëgg dund mu dund koo bëgg mu dee mu dee loolu may yàlla la ci moom kon yàlla yàlla ko may kon soo ko bëggee xam dañ ko xam te lii ñu ngi la koy ñaan nga defal ñu ci enquête boobu bañ xam ñan ñoo rey suñu doom parce que ñooñu tamit dañ leen a amal lu pour xeexal leen seen gannaaw ba nga xam ne danañ kontaan bi amoon naa ko ñaan la ko maa ngi la koy ñaan may yore audio yi depuis décembre ba léegi maa ko yore te ba ma ko yoree ba léegi kenn mënut a wax am na audio yi ku dul bàyyi lay jëm si ak fam ko denc ca Amérique ak ca France ak ca ñem ko dox parce que man ba ma jotee audio yi damaa def vidéo damaa ko dénk nit xam nga ko ci guddi googu na ko li ma jot top secret la te yàlla xaw ma kañ day yóbbu sama bakkan su ma dee yéen li nga xam ni jox naa leen ko da nga xam ne gëm ngeen lu ma wax loo ngeen di nangu na ngeen ma génneel vidéo bi wax Sénégal ne leen lii moo taxoon ma ci doon xataraayu te su ma dee nag ma ñaanal yàlla te jéggal ma loolu yëpp bëgg Sénégal nekk ci jàmm ñu nekk ci jàmm tey maa ngi nii ba ma demee ci juge bi dem ba ma toogee ba jox ko jëwel ba jox ko wax ya ca ne wax dëgg yàlla dafa meloon ne li ma yenoon ci kaw bopp ma yéeneeku waaye li ñuy wax xaalis di ko wax ci man la man xaalis fu ma fekk foofu la may bàyyi man mille francs damay moom man ba tey damay liggéey Dakar aw ma sax tere téere sax aw ma ko Dakar damay liggéey tam fii laa yaru ba may am trois ans laa ñëw Dakar ba jamono jii may toll nii kon ku ñu proposé xaalis ak xaalis lu neexee xam nga ne dañ ko jënd jënd ci ay kër jënd ci ay oto waaye soxlawuma loolu parce que xaalis bi ngay lekk ñu lay sit di la xool di la xaalis moom bu neexul

ndax xam nga ndongo bi mën naa exposé ñëpp yow kenn ci maternité nga jël bomb boobu nga jël ko yow nga dee bàyyi juróom yi ndax mu mën a àggale mission bi kon Sénégal man ma sacrifier sama bakkan moo ma gënal foof lépp di nekk ci ay dee ndax loolu amul lu jëriñ kon lii laa amoon pour leeral ko maa ngi seede yaa ngi koy gis maa ngi waat ci alquran al karim ne lépp lu ñu wax ci audio bi triché ko téléphone la man maa jël responsabilité te jël naa ko jaasi maa Aliou Sene Adji Sarr pour Sénégal ci li nga xam ne mooy stabilité Sénégal nekkaat ci jàmm man maa ko arrêté te suñ demee ci audio yi fi nga xam ne mooy orange danañ xam ñu boote la ñu arrêté lii nag ñu génn nii dañ koo génn rek pour am ci réew mi fii kenn gënul kenn du man du keneen du ay jaam yàlla kon maa ngi wax Sénégal encore une fois polémique bi bëri na ndax dëgg la wala du dëgg audio yi man de xaw ma kan de waaye loolu su génnee ci man suy génne ci juge boobu day génnee wala ci ñoom ndax am na loo xam ne am na kilifa diine waaye tamit liñ ci tudd ñëpp ay kilifa wax yi ci nekk ay wax yu bon la waaye waxu complot bi tudd Mamour Diallo ak nu ko defe yépp ci biir te nëbbatuwu ma ragaluwu ma te li wax ba tey maa ngi assumé bi wax ne lii ma wax moom moo am ndax complot la tey complot la ëllëg ku ko déglu xam naa ni Sénégal gii suñ ko déglu dina doy waar lool maa ngi jéggalu ñëpp di sant ñëpp gis naa ni ngeen na taxaw wax dëgg yàlla tey toog naa ci douche bi di sangu ba si kanam ma jooy ndax Sénégal lu kër gi ma delloo di ma gërëm di ma sant lii ma am nii la doy na ma sëkk ci àdduna wallahi alazim lii ma am tey su ma deewoon rek sant naa yàlla ndax ñëpp di la gërëm muy Gambie muy Mauritanie muy fu nekk Europe surtout maak waa Amérique rajo Cissé dégg France amet te muy jaay téléphone yu nekk biir Paris xaritu mu ngi bàyyi jooro yaa ngi dégg démb fàttewu ma kenn gaa yëpp nga xam ne kenn bu jaam sama taalibe ci Gambie

ndax yàlla rekk moo yelloo rey te lu ko neexee lay reyee jaamam bi lii amoon pour wax ko maa ngi jéggalu Sénégal di leen di wax encore une fois sama xol ak yéen ñu ngi ci fii ak yéen waaye di leen wax na leen xaw ma de doomu aadama rek laa du ma yënat du ma dara aw ma ndug ndug bu sottee bu ci man maa lépp loo xam ne pour Sénégal danaa ko xëy di ko xeex ci dëkk ba dee dama gënal ni am alal yoo xam ne ndawul mu li naa amoon pour wax ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu